Assalamualaikum wa Sénégal asalaamaaleykum aduna assalamualaikum sama réew man Waly Balago Seck maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la masaw tamit di ñi nga askan génn aduna ci lii di ñaan yàlla xaaral àjjana te yéexee ñu gars yi maa ngi wax parce que def ni gënaluma muy vidéo jox na cër sénégalais su ma sama wax du video, vidéo ah waaye nag da ngeen new ci dëkk ba te it maa koy naqarlu mangi ngi bokk bi ak yéen maa ngi bokk bi ak yéen maa ngi bokk bi ak yéen lii àdduna yëpp la metti ku ne xam Sénégal baaxoo lii kenn xamewu donc ñu ngi ñaan ci ñu ngi ñaan ci man yàlla dafa dogal jeunesse bi sama xarit lañu samay doom ñëpp a ngi Sénégal yàlla xam na ne gëj naa nelaw yàlla xam na ne gëj naa nelaw ku ma xool xam ni gëj naa nelaw màcc na ba ci kanam yàlla ñu ngi naan yàlla teg ko nu mu gën a gaay waaye nag ngir yàlla war suul yi force de l'ordre yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla war suul yi nañ yërëm ndaw ñi nañ yërëm ndaw ñi ñi jiite nañ yërëm ndaw ñi ñu jiitu nañ yërëm ndaw ñi ndax ndaw kat njabootu kanaara la boo ko jiitalee da nga ko yërëm